mu yéeg am na lu fi xew man danaa ko wax loolu lu mu xoolal day nooy day gën a nooy taasu warul dëgër. na bi ñu sant yàlla bu baax ñu ngi julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñu ñaari waajur di nuyu bépp internet boo xamante ni yaa ngi ñuy seetaan wala di ñu déglu ci euh, people 221. Euh, di ñaanal ñëpp jàmm waaye aussi di ko sàkku ci yéen di ñaanal suñu way dawlu yi nga xam ñoo ñu jiitu suñu borom xaare leen ci àjjanay firdaws si tey xëy ñu waaye ñi tëdd ci lalu hôpitaux yi aussi yàlla na leen suñu borom yëkkati. bañ delluwaat seen ay biir njaboot. waaye ñi tëdd ci lalu euh, ñu ne ci prison yi aussi yàlla leen suñu borom may liberté bañ delluwaat seen biir njaboot ndax liberté dara daa ko. Hmm. Euh, fi may njëkkee mooy Pape Chou lan moo ko dugal ci aar. waaw xam nga li géwél naan damay géwél di war a way yàlla def ma may bégale man nag dama bokk ci askan woo xamante ni tubaarkàlla euh, boo ci bokkee boo woyee da ngay da ngay wàcc. boo bongo da ngay wàcc boo taasoo da ngay wàcc boo defee aar da ngay wàcc mais askan mu ngéwél mhm. te def naa ne euh, aar moom munoo ko def ba mu jeex te génn ba génn ci géwél loolu mënut a nekk. Mhm. doon géwél nag gi ma doon géwél moo tax ma bokk ci aar. Mhm. bi nga ko doonee da nga dem jàngiwaat yokk sa expérience wala da ko doon rek xëy famille lii laa rek jël bongo di way. non non euh, euh, ko doon ba pare xam nga lu waay doon mu dëgër. dañu doon aar. doon ngéwél doon euh, baax mu nekk ci suñu deret ba pare. Mhm. mais bi loolu doyulee bi ñu màggee. Mhm. Euh, dañoo xam ne tubaarkàll euh, jamono buy dox da ngay dox ànd ak moom. Mhm. ñu daal di yokk ci xar mi karaw. génne ci yu bees. créer ci lu bees innover lu bees. loolu moo tax xëy na peut-être ñu def la différence entre ñun ak ñun fi fekk walla entre ñun ak ñu fi nekk. sa première yéeg sur chaîne nga ñëw ñu jox la programme nga fa yéene jàkkaarloo ak nit di ko waxal lu baax sa premier sa premier jour noo ko dundee. waaw ni ma ko dundee muy contentement rek ak euh, xam ne xës xëy na euh, li ma doon wala li may liggéey euh, mi ngi am avancement bu bëree bëri bari bari mhm. ñun nag loolu mënuñoo jaaxal parce que ñun askanu Ngéwél boo ci juddoo programme mënu laa yéem. parce que déjà ñun suñu ay biir kër ci boppam la ñuy njëkk a defee programme. Mhm. ndax bu nekkee suñu biir kër rek. jeeg ju baax jafa ne di sëy bu nu toggee lu neex bu nu paree ñun dañuy mbeeraay suñu biir kër <laughs> daal di génne cool yi foddat mbëmba ngi waxtaan def mbeeraay lu toog ci biir kër gi <laughs> déjà loolu boo ci màggee euh, euh, euh, dajeeg ay nit wala nga dem ci programme du la jaaxal. dëgg la donc lool yoon yëpp ñun dañ ñu see yar. ñu mm-hmm. judd ci màgg ci donc bu ñu màggee def ko. Mm-hmm. day doon rek un plus un égal deux. Mm-hmm. tey ñu jox la programme nga war a jouer koo xam ne sant na Fall parce que léegi maanaam li ma bëgg xam foofu loolu da nga koy programmer laaj ay maamam wala da ngay ñëw rek am sa inspiration di ko inspirer parce que gis naa ni loo wax rek xale yi dañ koy challenge looy préparer la wala. non des fois mu doon lu ñu préparer parce que déjà bu fekkee dañu jox benn xew boo xamante ni dafa jël une semaine à l'avance wala deux semaines kooku dañuy xuus ci ay mbokkam. Mhm. xuus ci famem xuus ci ay maamam. Mhm. xuus ci moom mooy kan ba xam ko ba tubaarkaale bu nu jàkkaarloo ak moom. Mhm. lu nu ko wax dootuñu ci dellu. des fois nag mu doon ay programme yu brusque yoo xamante dañuy toog rek ñu woonu. ñu daal di dem bu ñu demee kooku ñu créel ko lu bees taax loo xamante ne fa nu toog. Hmm. fa lañ koy waxee créel kooku mu génn toj àdduna bu mu bëgg ko ñëpp bëgg ko. Hmm. noonu lay demee. sa programme yooyu mosuloo ci am accident hmm. accident mooy tey nga war a dem xew boo xam ne awa nga sa samedi bi passé rek xew bi ma tëggi noonu la demee parce que dama fa fekk ñaareel dafa ñëw di ko nuyu si donc euh, ñu daje fa. tubaarkàlla mën na leen digganteeg aawo ak ñaareel du ma ci dugg ndax seen ñaari doom yee bokk benn baay te aawo ñaareel jaru ñaaw bokk wërsëg rek la. Mhm. waaw des fois loolu yëpp daf ñuy arrivé mais ñun lépp lu ñu mën a arrivé rek. Mhm. ay doomu géwél lañ. baax la ñu xam. defar la ñu xam. Mhm. dajale la ñu xam. dañuy daal di rek yor suñu bësoo ñaw ba ñoom ñaar ñëpp ñu ànd. nekk ci jàmm. mais mosuñu leen a corrompe ci programme comme nga ñëw tey fekk fi aaw ak ñaareel njëkk yi ni la njëkk yi corrompe la waxal kii lu baax ignoreel kee. non ku xiif la ñuy corrompe ku fifi la ñuy corrompre mhm. hypocrite la ñuy corrompre mhm. ku reggul la ñuy corrompre mhm. ñun fa ñu juddoo dañu fa reggee ba pare donc feneen fu nu mën a dem bu ñu fa fekkoon ñu milliards yi dañu naan dégg ni wayal ndax dara fëkku suñu bët te dara mënuñoo jaxase kenn kenn lan ñu fay dañuy ñëw ñaqal loo ko defal li nga xamante ne moom nga ñu sant suñu paree dañuy ñibbi Hmm. ndax bu ñu ba dañ leen fay bàyyi yéen ñaar yéen a toog seen sëy ngeen sëy hmm. donc ñun lu lu leen jubóole ak luy dox ci seen jàmm rek lañuy dox hmm. amuñu jaxase amuñu dugg ci sëyu jàmbur noonu tey damay ñëw nag ci li nga xam ne moo waral cooli muy nay nooy euh, nga def sorti de The CV tey nga ñëw toog ak say moroom di waxtaan ñi nga xam ne yéen a bokk aar bi mbégte moomu noonu nan nga ko dundee bala maa ñëw ci li nga xam ne mooy débat bi waa confrontation boobu nag euh, dama ci sant yàlla rek bu baax a baax. ndax des fois àddina day toll ci jamono boo xamante ne da yéeg ci balance. Mhm. balance bi nag man je peux dire que moo nekkoon confrontation pour ñu xool ñun suñu suñu poids dëgg-dëgg lan la ci réew mi. Mhm. yàlla bi mu defee na ñu def confrontation boobu bañ ca jógee on était six ou sept personnes. Mhm. waaye tubaarkaal defe naa ne balance bi mu wàccee maa yéeg. xam nga ndax dégg nga moom déet. bu baax. balance bi mu wàccee. man maa yéeg parce que. ñama fa toogaloon gënuma ci kenn. Mm-hmm. ñama fa nekkaloon mënuma ca kenn. Mm-hmm. ndax ñoo bokk lañ doon liggéey. Mm-hmm. ñu prouver ndax confrontation boobu noonu bii su ma ko doon organiser yàgg naa bëgg mu may woo ci ay yëfam. te antuwul. xëy na boobu dañuy doog a door mais bi ñu prouver ak sunu jommi bopp ak sunu fulay bopp. ñu xaaruñu moom ñu woo ko. moom moo yëkkati téléphone am woo ñu soxla ñu. ñu dem def fa fula dem fa fayda. wane fa personnalité ak jom. mën na fa jógee nag coow li daa coow li daal dina kuur ma xam ne nag tubaarkàlla ndax réew mi nag am naa fi place nag. <laughs> naka dem coow loolu réew bokk naa fi nag. coow loolu tey nga ñëw génne taasu dafa war a nooy. Mhm. ñii ànd ci ñii ànd ci mais majeure partie ci sénégalais yi di la critiquer di la di la di la ŋàññi nga ñëw imposer wu gën a dëggal sa bopp. man na critique Euh, dafay baax ci ñëpp. Mhm. parce que defe naa ne àdduna moom boo nekkee ci àdduna te kenn critiqué wu la. Mhm. wala kenn waxul ci yow. Mhm. mën ngaa bàyyi. te aar la ñu wax. musique la ñu wax aar nag dafa boo dafa ànd ak coow. dafa ànd ak critique. mais nag yàlla suñu borom may nañu euh, fit may nañu fulla may nañu personnalité boo xamante ni lépp lu ñëw mën nañ ko encaisser. ndax nag ci réew mi la ñu juddoo. màggee ci réew mi. imposé ci réew mi prouvé ci réew mi mhm. ndax na tubaarkàlla xale yi prouvé kenn waxul ci ñoom mhm. xale yi deful dara kenn waxul ci ñoom mhm. ku def nag da ngay dégg boo deful doo dégg dara Papichou nag dafa ñaaj xuus yoon wi leer ndayam sëyal baayam sëy bu rafet mu leeral yoonam ba tubaarkàlla fi ma jëm dama koo ñemee donc euh, day gën a nooy sax nag xam naan day gën a nooy affaire bi pap mu mel ni yow mel ni gars yi <laughs> gars yaa ngi toog di kaas ba manifestation di ci waajaam mais dafa mel ni gën a imposé mbaa xam nga ne mbaa ne bu nu maa ciy jiitu day nooy bi day gën a nooy man fi mu ne coalition nay nooy laa woote <laughs> xam nga àddina moom waaye yow yow yow ma laaj la yow yow guy gi lu nooy ak lu dëgër ban nga ci gën a bëgg. lu nooy <laughs> lu dëgër kay baax na. man sama jabar jee bu ma ba ma koy daq bu woon kongu <laughs> ne kétti kéttaaral ne athlétisme athlète non dama koy bàyyi mais xam nga tax ma topp ko ni nopp ko mm-hmm. dèjà dama ko bëgg mais daa nooyal ba mu nooy mm-hmm. yaram bi ma ciy làmb di ci daj muy nooy nepp mm-hmm. ma xam ne man jigéen laa takk pataas sax day nooy nepp mhm. nga def ci suukar mbaa nga def ci xorom bu seddee neex bu tàngee neex ñu mhm. doy lu dëgër mhm. taasu day dëgër kenn waxu ko dama bëgg dem sénégalais ñu ma leeral tam benn mbir xam nga dañuy dégg dañuy dégg tëll rek ne damm na waaw te réew mi dañu toll réew moo xamante ne des fois day jaar nga leeral lu bari bi may wax taasu nooy nooy fii may wax ak yow kenn mënusul mënul génne vidéo ne Papa Sow dafa ne góor day nooy non non. taasu day nooy. taasu ba jamono di baax jigéen moo moom taasu. Mhm. jigéen moom mooy taasu. comme xam nga. Mhm. mais ñun comme que dañ ne góor baax na jigéen baax na. te ñaari loxo rek mooy takk sër ñaari loxo mooy takk tubéy. Mhm. donc liggéey bu fekkee ne dañ ci liggéey mën ci gis sa bopp. te doo ci sàcc doo ci fenn doo ci lor doomu aadama mën nga cee faj soxla fajal ci ñeneen ay ak ñeneen ak ñeneen ay soxla. liggéey boobu suñu borom da koy daganal. danoo ñëw fekkoon ko ci benn level. ñu yóbbu ko ci beneen level. kon faaw coow li bari. kon nooy nooy bi ba nga koy wax yaakaaroo woon. néew ma góor day nooy que ça ma góor day nooy ndax góor gu nooy kan soxlaw ko. Mhm. taasu laa wax. day nooy man Papa Chou dama koy nooyal te dama koy gën a nooyal. Mhm. te maa ngi waaj yeneen yu gën a nooy yoo xam ne bu génnee toj dëkk bi. bokkul ak nooy bi paase. non non bii nooyul woon. mais xanaa nooy laa waaj fan <laughs> te man li ma jaaxal dafa mel ni sax nooy nooy bi da nga koo déclaré ba pare uti ay éléments parce que maa ngi dégg say communication nga naan waa dig. mu non non non commu euh, bi dig bi euh, nooy nooy indiw ko c'était juste benn euh, benn benn cri de cœur boo xamante ne nii man personnalité laa ci réew mi. Mhm. bien vrai que nag bi ma juddoo yàggul xale bu ndaw laa waaye am naa fulaak fayda goo xamante nii mhm. doxuma ci daray ñàkk fayda mhm. doxuma ci daray manqué mhm. doxuma ci daray no sens man ku def coalition ci man ànd xeex Pabichou da ngay daanu da toog parce que xam nga tax doomu jullit laa doomu géwél laa taalibe cheikh laa am na yu bon wala yu ñaaw wala yu salte yoo xam ne doxuma ci léegi naa ñii naan dafa nekk ci lobby ñii naan lii ñii naan lee mais ñooñu ñëpp dañoo nekk sama ginnaaw moo tax. Mhm. ndax man ñi ne sama ginnaaw man ñu maa ngi leen di jéem a roppi. Mhm. parce que yëfi course la. Mhm. mais boo nekkee ci ginnaaw. nga mar dawa dawa dawa dawa daw ba ndox mi jeex te mënoo maa dab non faaw nga sànni ma xet loolu la rek dig bi nag tey la tey laa ci gën a mën a wax ndax maa ngi déposé samay plant contre X yoo xamante ne je permets plus à personne <laughs> mu jël samay photo di ci wax du n'importe quoi parce que man kilifa laa ma am soxna ma am dama am famille dama am yaay dama am papa. kon su doon ni gars yi dañuy xaar ku ku rek ñu wala. ñu jotoon a posté ñam nañ bi ñu demulee dañ leen a jël si ñi jotoon a posté. waaw ba saaga wax leen wax li leen saf. Mhm. ba ñu demulee dañ leen a jël si. Mhm. parce que dëkk yoon lañ ne on est dans un pays démocrate. Mhm. Sénégal lañ nekk dëkk yoon la. amul diffamation amul nit amul droit def la ko. Mhm. parce que am nañu suñu ay njiit yoo xam ne cybercriminalité tey ji boo fa demee képp ku wax ci yow lu mu war ta wax ci yow. Mhm. dañu koy fekk fa mun a jësi ko te ñun nag duñu juddu jéeri duñu kamantaan ci réew mi lañu dëkk. Mhm. Abbas Ndaw gi lañu juddoo ñu ngénte ci biir camp bi kaseenu Samba Jéeri Jaal. ñu màggee xaar yàlla yaroo ginnaaw raay. kooku ragal mën naa doon ragal. non te mbaa xam nga ne tubaarkàlla ñaay ndax dañuy wax dañuy wax ñu xeex ba naaw. kon yow affaire am jël. kon yow boobu ba tey làqatuwoo parce que maa la fekk ci lieu public. ci atelier lu ne fàng kenn di ko jeex. kon yaa ngi yaa ngi marché nii ci mbedd. waaye yow man kaay ma wax la ñaari baat man aw ma garde corps aw ma ku may garde guy gi réew mi dama fay xàppi par la force nit mënu ma fee tere xàppi nit mënu ma fee tere dund waaye yow man damaa sàcc damaa fen hmm. damaa agressé damaa rey nit hmm. damaa def lu ñaaw hmm. damaa am vidéo aw ma fi photo sama casier judiciaire dafa set wécc. Mhm. réew mi kenn mënu ma feexal daal man doxuma ak sax ay garde corps rek ñu may àndal. Mhm. je indépendant man sama indépendance maak moom ba keroog bàmmeel. Mhm. nit mënu ma ko xaj. nit nag mën na droit nag am nga sa sa sa sa imagination am nga sa xalaat lu la neex tam mën nga ko xalaat ci nit. mais man bu raayante jotee léegi damay taxaw ñu xeex ba naaw bu ñu paree ku ne dem ginnaaw raay laa dëkk. ragal du jéggi raay. Mhm. non non. Mhm. bi coow loolu amee cybercriminalité mooy nuyu accident fay nuyu Touré. ah xam nga leen. <laughs> baax na xam naa ko ñoo ñoo ñoo ma yor. Touré premier jour bi ma njëkk woon ne ma Ablaye Fall dama tiit. ñooñu seen appel yàlla nañ ci yàlla musal. ñooñu seen appel day yóbbu fit. xale bu ko ci bawul dey <laughs> ku ci bawul jël photo jàmbur lu mel ni xeme. ñooñu seen appel dafa dëkk bi dafa am yoon. Mm-hmm. guy gi léegi bu kenn xeex bu kenn xuloo. Mm-hmm. demal ca Touré mu defal lu Touré nga toog. <laughs> daa mën a woote de Touré daa mën a ñooy. <laughs> moo réew mi dafa neex. <laughs> d' après bi loolu xewee ñu gis euh, seen i grand frère yi ne ci aar bi comme ku ci mel ni ay Dame seen génn di la classe di ñaalu dem bay engagé wu ni ñoom loolu noonu buñ seetaan aar bi di nooy daa war a dëgër. waa xam nga maam moom sañ na saw lool jiit ko sëtam. Mm-hmm. ñoom samay maam lañ. te dama leen di bàyyee rek cëru maam bi. Mhm. ndax xam nga sa maam moom. mun mhm. naa tëdd fii nga tëdd fii. Mhm. mu saw daal di ñëw ne yaa ko saw. da koy nangu rek. ñoom samay maam lañ dama leen di comprendre. am nañ droit wax lu neex. samay maam lañ te it baal naa leen ci xol bu sedd guy. maam moom bu defee lu ko neex rek nga bàyyi ko mu def lu ko neex. mu mel ni tamit gis naa ci Veña. tey gis naa benn vidéo mu génn ñu koy laaj. mbay sapar sapar. di ko laaj mu ni moom xamul Papichou moom Babacar la xam. Mhm. te moom coalition nay dëgër la ànd. Mhm. waaw man mii sax xaw ma ko. man euh, coalition nay nooy laa bokk. Mhm. coalition nay nooy laa bokk. xaw ma ko man tamit. mais nay nooy boobu naka nga dundee ak sa famille parce que tamit metti na wala neexul donte kenn du la waxal lu bon. mais critique yi naka nga dundee ak sa famille. waaw nag critique yi nag bon des fois metti nag wax dëgg yàlla pour dire vrai. parce que nag ñun suñu yaram bi boo ko bënnoon tey jii ndox du génn. Mhm. dëtt du génn. Mhm. ay doomu góor lañu. te góor gu nekk am na yoo xam ne bu ñu ko tegee ci sa der rek. Mhm. tubaarkàlla mun na laa topp ba keroog ilaa yawmi diin. wala it mën na laa sonal wala mu sonal sa njaboot. man en personne ma préféré aar. ma préférée musique. Mhm. ma préférée critique. Mhm. je suis prêt à dékku lépp. Mhm. mais xëy na peut-être man dëgër gi ma dëgër. sama yaay mën na bañ a mel noonu. wala samay doom mën nañ bañ a mel noonu. wala ñi ma bëgg mën nañ baña a mel noonu. mais dama leen di delloosiwaat rek. que ne euh, ñi génnul télé. kenn waxalu leen dara. ñi nekkul ci site internet yi kenn waxul leen dara. ñi nekkul artiste wala ñi siiwul. siiw nag moo dul jàmmi borom. xëy na siiw moo tax tey jii ñu focus ci duñu wax yenn yi. mais sunu ay yaay ak sunu ay papa xam nañu ci fulla ak fayda parce que ñoom ñoo ñu yar. Mhm. xam ñu ci personnalité ak jom ba xam nañ ñii. Mhm. Euh, xaj gaal bañ leen di séntu. Mhm. duñ leen ci mës a fekk. donc côté boobu ñoom bu ñu tëddee dañuy nelaw. waaye nag am na loo xamante ni euh, kenn du bëgg ñu koy wax sa doom. wala kenn du bëgg ñu koy wax sa waajur. metti woon na nag au début. mu metti trop ba bi may génn di wax sax peut-être tayatuma ko. parce que boobu bëggoon naa ñu arrêté. parce que tamit am na loo xamante ni sénégalais. bu xosee. nga bàyyi subaa day ñoppati mhm. gannaaw suba boo ko bàyyi ci sa kaw mhm. te man nag balaa ngaa yegg fii non dama lay xëcc ba nga ñor de mën na teel mbëkk nga wàcc <laughs> of barke Xalifa Malick yow daa mel napp fi mu toll nii non man napp ma kenn nga jël sa garde quoi non xam nga li problème bi <laughs> ah. damaa nekk doomu sénégalais man du ma ivoirien mhm. du ma gabonais du ma français je suis fii laa juddoo carte d'identité sénégalaise laa yor. Mhm. kon du ma nangu kenn di ma fàtt mbala nga may teg bët wala nga may. <laughs> sama indépendant man xamal la laa gën a may sama àdduna bur jaar fii. Mhm. man guy gi mënu jaar doon jaar fii foofu laay jaar. Mhm. indépendance man ak moom à vie man damay ind je suis un homme indépendant. man kenn du ma xañ indépendance. mais d'après ses programme ak coow li nii yàqul dara ses programme waaye tey laa laa ilaaha illallaah man dama tëggi woon bay doog a ñëw nii. Ah, fan yii. barki Serigne Babacar amatuma sax jot jot bi ma amoon. xam nga des fois sénégalais gis nga nit dina la nit nit dina def benn affaire defe ne da lay yàqal. Mhm. fekk na mi ngi lay defaral. Mhm. man si sama coow lii laa xam ne naka te àdduna ma la Sénégal de naka te àdduna dañ maa bëgg. Mhm. damay toog léegi nit woo ma yónnee ma un million ne ma Papichou maa la ko may ndax coow li bari na lool jëndal glace. ci un million. ñii def cinq cent mille. ñii jënd gasoil ñii ne ma Pape Chou dootoo jënd gasoil ñii ne ma tubaarkàlla semaine bi yëpp li ngay sol maa la koy jox mhm. ñii di Wave ñii di Orange Money mhm. kon tey jii man damay sant yàlla mhm. te pourtant ñi ma fa nekkandoolu xaw ma nuñ toll samay morom laa fa nekkaloon te gënuma leen mais coow li xëy bu ñëwee tey yëpp bàbbeeku sama kaw man nangu ko lool nag ndax man du ma ragal man gaynde laa te damay assumer damay accepter coow li mhm. daf maa gën a avancé loo mhm. mais delloo ma ginnaaw mhm. te réew mi tey laa fi gën am indépendance tey la ma nit ñi gën a bëgg kon man lan la mais amul mais lay woo di la di la di saaga wala di la dépassé ñu xel xel xalaatu ko sax man ku ma woo dépassé ma mbaa nga saaga ma cyber ah tubaarkàlla cyber criminalité Touré Touré laa lay woo moom huit heures bu la nee allo laay <laughs> laay la laa da lay ba fa nga ne mu fekk la fa ne la Pape lu mu jot ak yow man guy gi ma kenn man musoo leen ma dégg ma xaste mosoo mm-hmm. leen ma dégg ma saaga mosoo mm-hmm. leen ma dégg ma dépassé doomu aadama mm-hmm. pourquoi sénégalais yi bëgguñu bëgguñu bëgguñu ku baax lu tax bëgguñu ko civilisé lu tax bëgguñu ko correct lu tax bëgguñu ko ku ku avancé saa boo avancé am na lu ñu war a taxé si sa der saa boo tegee benn pas am na lu ñu lay jéem a yàqalee nañ arrêté loolu lii nii benn laps de temps la àdduna lépp ci temps lay yem ak ci app bu app ba jeexee da ngay dee ñoom ñoo toog di wax ñëpp. Mhm. nekk ci sama der bi. Mhm. dañoo amoon seen jamono di ko dox. Mhm. nit ñi bàyyi woon leen ci. fi mu ne nii seen jamono jeex na nanu gëm yàlla tam toog bàyyi xale yi doxal. déggoo ma de. dégg naa la baax. jamono ju nekk ak la cay xew. Dakar du saf ñaar yoon. Dakar benn yoon rek lay saf. ñoom dañ daan toog ci tele di leen seetaan ñuy toj ñuy kontaan. kon ñoom dañoo war a dem jël sijaada ak kurus jël ban toog di ñu seetaan ñuy doxal ñuy kontaan. looloo leen tey mu mel ni ñu ngi may signalé ni sama waxtu léegi mu jot euh, mënuma wax ba pare te du ma la laaj sa relation ak Amina Poté. Mhm. waaw Amina Poté nag li may faral di wax saa su ne rek kooku sama yaay la. Mhm. Euh, sama xarit la sama jigéen la. Mhm. lu mu mayul kenn ci senegal man man may na ma ko. Amina Poté amul kenn ku dugg néegam. man su ma demee ca kaw loola mbalaay jàll. di commandé nag. Mhm. di commandé samay yu sedd mbaa ma commandé samay café mbaa ma commandé samay yu baax. ñu mhm. mooy fekk si foofu. Mhm. parce que bët bi muy xoolee Petit Laye doomam moom la may xoolee. Amina dina ma wax lu mu dul wax kenn. dina ma defal lu mu dul defal kenn. jox na ma cër respecté na ma ku ne xam na ne barki démb la ma defal wax défendre ma ba àddina bi yëpp dégg ko. seetaan naa ko te tubaarkàlla moom bu nu ko laaloon noonu laa jigee. buñ ko laaloon tey damay jug ban ko laalee it damaa mhm. moom ban ma laalee dafa jug te ci dara. dafa sa coalition dafa tàng. ñoo ñun coalition bi ñu bokk xam tax <laughs> xam tax ñun on fait partie des influenceurs ñun duñu ay bongoman kase man Pape Chou je suis influenceur. Mhm. je suis tiktoker. Mhm. je suis artiste un musicien. li nit ñi xamul man yam ma ci bongo ma bongo kase. man sax ban ne ma mënuma bongo man mënuma téye bongo. mënoo man taasu laa mën. man artiste complet laa. man maag booy nii nii bokkuñ de. Mm-hmm. dañoo bokk école rek mais bokkuñu classe. Mm-hmm. man je high level man je suis le VIP. Mm-hmm. je la le griot VIP je suis l'intellectuel je suis l'ambianceur du peuple. sénégalaise. bokk ma ñoom. xam nga rek. mooy loolu xale dama leen di bàyyi ñu ñu ñu kii rek. may kii ak ñoom. dañ lay bàyyi nga tàggatoo ak ñi lay suivre ak ak sa ak sa ak sa mbokk yi nekk ci TikTok bi parce que TikTok moom bëri nga fa ay soppe. waaw bëri naa fa ay soppe loolu sénégalais bëgg ma nag macha allah. Mhm. black à waaye réew mi xam naa ne am na fu mhm. wax dëgg yàlla euh, maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ne. Mhm. ñaan yi mi ngi yegg si. soutien yi mi ngi yegg si. bëgg bi mi ngi yegg si. tubaarkàlla wéef yaa ngi ñëw orange yaa ngi ñëw. xam nag kaay guy gi. am na ñoo xam seen xol du mën a neex de. xam nekk rek yor sa rajo di ratatata rek fu ñu la dékkee micro nga mel ni ku xiif di wax rek da ngay jëfur nañu bàyyi xale yi doxal mm-hmm. gis nga ku ci mel ni Papichou mm-hmm. doom ju ndayam gërëm la mm-hmm. ku ci mel ni Papichou mm-hmm. lu mu am bokk ak ndeyam lu mu am bokk ak baayam lu mu am bokk ak ay famem mm-hmm. bul ko gis ci télé bi mbaa nga ko gis ci internet bi nga defe ne Papichou nit ku bon la non non mm-hmm. soutien de famille la Papichou loolu muy jóg di dem noonu day ñëw pour daan doole ñàkk tedd teral ay waajuram nañu bàyyi xale yi ñuy fakkatal nañu bàyyi xale yi ñuy déstabiliser nañu bàyyi xale yi ñuy yóbbu seen fit man nag gaynde laa man kenn mënu yóbbu sama <laughs> man góor laa nag damaa dëgër. Mhm. mais taasu bi dama koy nooyal ba mu nooy nepp dama cee rax nepp. léegi bu kenn yem ci nooy gi nepp nepp taasu day nooy nepp te day gën a nooy nag. <laughs> dégg la maa ngi waaj yu nooy yoo xam ne bu gën a toj dëkk bi. mais xaaral nga génnee ba man dëkk bi dama fee mën a dë fii réew mi dama fee mën a làqatu. bu làqatu dee am ñoom ñooy làqatu. ñoom ñuy mhm. dëgëral. Mhm. man du ma maçon. du ma mécanicien du ma soudeur. du ma soudeur métallique. xam nga la laa bu ma génnee si sama taasu nag bu ma Papichou moom taasoom day nooy. Mm-hmm. mais bu ma fekkee fa nga xamante ne justement à ma personne man kase. Mm-hmm. foofu sama beneen nit mm-hmm. bu ñu jaawale personnage. ak personne ak bi ñuy incarné ak suñu taasu bi ñuy def taasu. day nooy. nooy boobu moom la xale yi bëgg. ñun bu ñu demee ci taasu ci xew yi dañ koy nooyal xale yi duñ ci teral. Mm-hmm. mais bu ñu demoon di ko dëgëral ne <laughs> foo xale yi daw. yoo xam ne dëgg yow guy gi. mbër nga. Uh-huh. bu la fekkee ci arène bee ñu fekk la ci entraînement bee da nga koy ba mu dëgër. Mm-hmm. ok mm-hmm. parce que loolu da nga loolu mooy sa métier. loolu loolu gis nga métier boo koy def. te xamoo laaj bàyyil. waaw ñoom dañoo réer. boo réeree nag gis xale bu feeñ xam yoon bi. da koy jéem gis nga xam nañu war a def. dañ ma war a woo ma wax leen yoon bi nan la ak naka la. Mhm. wan leen ruq yu nooy yi nan la. Mhm. parce que lu nooy la ñëpp di wër ah. dëgër kenn bëgg ko. te yàlla nañu yàlla musal ci dëgër di lijjanti muy wow rek kong di dëgër <laughs> yàlla nañu ci yàlla musal <laughs> yàlla nay nooy te nay gën a nooy man de nooy gi maa ci gis sam bopp <laughs> te nay gën a nooy nag nepp. Eh, dañ nga tàggatoo ñu lay suivre. waaw waaw waaw guy gi ñu ngi kontaan bu baax yow te un frère. Mm-hmm. Euh, te borom euh, site bi aussi di sama xarit wax dëgg yàlla. Euh, mm-hmm. people 221. Mm-hmm. nit ku baax bari valeur. nee naa réew mi fii la toll. dañuy waxante lu baax. si teraanga. waxalante lu rafet. parce que image dafa nekk loo xamante ne c'est un truc boo xam day rester durant toute ta vie. nañuy bàyyi di gàll ay wax ci ay doom. doom yi nga xamante ne nag seen i ndey dañoo yeewu fajar liggéey. leeral la leen yoon bi mm-hmm. mu mel ni làmp ñu dara mun leen a téye mm-hmm. te Papichou da cee bokk mm-hmm. ku yabu noppalu ku yebu ŋaang ma wadd parce que man fi ma jëm dama koo ñime ku gis samay début ba léegi xam ne sama jom laay demee sama ngor laay demee j'ai l'appui de personne guy gi man barki Serigne Babacar si laa la waatal yoon wi ma jëm dama koo ñime mm-hmm. parce que xam la la ma cee duggee fulla duggee ci fayda duggee ci jom mm-hmm. bëgg cee tere sama waajur mm-hmm. loolu rek moo ma ci intéressé man boo gisee yoru ma sax stylu taasukat man yoru ma sax stylu taasukat mais àdduna boo nekkee ci àdduna da ngay jéem a maanaam bu fekkee am na luy nelaw ci yow da nga koy jéem a yee bu fekkee yeew na boo ci mënee tere sa ndey nga dem ci bien vrai que ñun am am na am de métiers yu nekk ci Sénégal yu ñu mën a def. Mm-hmm. man boo ma gisee da ci bureau laay toog wala dara. Mm-hmm. mais boo gisee ma jël aar parce que dama ci gis ne xëy na mën naa cee tekk ba teel ci sama. waa mais association euh, Ouzin Mbaye bi nga bokk président des Bongo. kooku mooy mooy kan. association Ouzin Mbaye bi. non man maa ngi ci association nooy nooy. <laughs> au fait yow nga comprendre benn affaire. Mm-hmm. ku ci nekk jëlal sa yoonu bopp. ñoom dañoo sentir dëgëral. ne Papichou. nee nañ na yaay man damay nooyal. Mhm. taasu bi dama koy nooyal te ñoom nee nañ réew mi dara du fi nooy. Mhm. te duñ nangu ñu nooy. Mhm. nañu xool nooy geeg ak dëgër gi bu ci gën a dem. d'accord ñoom xam nga guy gi dafa am benn affaire àdduna lépp loo nekk gis ci sa bopp avancé ci. bul focus kenn ne leen kaa leen def lii par la force. képp ku nekk ci association taasu day dëgër mhm. waa dëgëralal te yàlla na la ci suñu borom jàppale mhm. képp ku nekk ci association nay nooy mhm. yàlla nga ci gis sa bopp te nag guy gi ñun ñu ngi ciy gis suñu bopp ñi ci gisul seen bopp rek ñoo yuuxu de woo site internet yi ratatatatat ratatatatat ratatatatat mais ñun bu ñu waxuñu te ñu ngi dawal ci oto yi ñu ngi tàq ci or yi ñu ngi yor suñu suñu jàmm ñu ngi ci suñu jàmm ak suñu salaam kon lan lu xew aar mhm. kay boo ci nekkee waaye Seck nee na musique même bu neexul sax fexeel ba na na nga koy defee neex nit ñi. Mhm. ñun la ñuy def neex nañ la ñuy woo ci seen i xew. Mhm. looloo tax ñuy focus ci suñu liggéey point barre. ñuy dëgëral dëgëral leen ñuy noyal noyal jàmm na ñooy. d'accord ah, lépp lu nu fi wax nag mu débordé matadik doomu aadama la waaye lu nu fi wax mu jub ndimbalug suñu borom la ñi ngi santaat yàlla bu baax di gërëm suñu ay waajur ñoom ñu ñu yar ci fulaak fayda ak ngor ak dignité ak fulaak fayda gaalu xaj nag du duñu bañ kuñ ci séntu waaye duñ ñu ci mës a fekk ñuy lekk hmm. parce que xam nañ fa nu jóge hmm. xam nañ ci askan nu bokk ay jullit lañu dara du nu laal te ci ay taalibe cheikh lañu sëriñ Babacar la ñu gëm ali booy monsieur Sambey naa sama waa ji ne woon bu ma rusul woon sama baay ba ma woowee ci photo dama lay wuyu man sëriñ Babacar am na lu mu may dénk loo xamante ne mënu ma ànd ak bon hmm. nit nag boo ko xamul dee ko wooye et eh, foofu laay tëjee yàlla na ñëpp am jàmm. gars yi mu ngi noonu ah, ñu amoon contentement ak mbégte ci dalal ko mu nekk sunu frère bu disponible nag xar naa jot nag mais bon tey la ko yàlla tudd kon nañ koy nangu mu doon ko disponible di nuyu ñu ñu fekk ñëpp di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñu dalal muy waa Lamtoro Couture di leen jaajëfal di leen jox yeneen dig daje ci fii ci People 221 jërë ngeen jëf.